waaw trafic euh, d'électeurs moom. Euh, mm-hmm. yàgg nañu ko gis ci ay élections locales. Mm-hmm. tey bari na ñoo xam ne jiite nañu seen ay localité boo ñu delloo ci ginnaaw ci élections yi le weesu loolu moo nekkoon seen méthode mais njort nañu ni xëy ne bi yoon dina am changement. dina am changement daañu teel a jël seen ay matuwaay parce que euh, wàllu gox la xam nañu ñu dëkk ci gox yi xam nañu dëkk ci ñu fa dëkkul donc ñu dëkk ci gox yi nañu jël seen ay responsabilité quant mm-hmm. à nag li mu wax ci ay centre fictif yoo xam dañu koy créer biir Médina loolu itam dafa laaj vigilance ak di ko dénoncer moo xam mu nekk Médina moo xam mu nekk baneen localité parce que nag am na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci nguur am ay fonds ak ay moyens foog nañ def lépp foog nañ mhm. ñu santaane ñu def alors faaw askan wi di leen wax ni déedéet parce que fa ñu nekk askan waa tax ñu nekk fa mhm. donc ñoo seen ay kantan ak seen loo xam ne impossible la def ko ci ay localité kenn du ko nangu nañ def face mhm. parce que askan wi ñooy defal seen bopp seen choix ku ñu wóolu ba teg leen seen kanam kooku dañ fay bàyyi mu dem dañ koy bàyyi mu dem mais amee ay tooguwaay DG wala ministre wala député après ñoo imposé wu ca quartier ba trafic d'électeurs déplacé leen mm, indi leen yooyu moom dafa a jeex ci Sénégal ak surtout suñu démocratie fi mu toll. sàccum élection yi sëtë ngeec Doudou Maïssa Wade nee na 2014 loolu ci boppam moo ko xañ ak ndamam ndax ba ñu demee si jongante yi ca commune bu Rufisque moom leer na ñëpp ni kon moo gañe waaye nag sàccum élection yi moo tax moom ñu foxati euh, li nga xam ne moom mooy ndam li sa loxoom si ak ndajam assemblée générale si njeextolay bés bi la yëkkati yooyu di sàkku nag ci ndaw yi ñu bàyyi bu baax ci mbindu mi euh, te bàyyi gi la yoon du nangu mukk ñu sàcc ak ndamam Doudou Meysa Wade ay kàddoom ak euh, Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour am na lu fi amoon en man du joxe bopp di rocci lamiñ rester mobilisé et vigilant surtout à Guy Mouride les opérations d'inscription dina am léegi donc en semaines na ngeen bu leen nangu ñuy sàcc seen victoire administration boo xam ne nuitamment jël ay bureau malgré les efforts que vous avez fournis cette jeunesse, vous n'avez pas dormi pendant des nuits. Pendant des mois, vous vous êtes lutté. Le jour de l'élection, nous am des personnes indélicates. Nuitamment, jël ay enveloppe def ko ci ay bulletin def que ci enveloppe ñu dem bourrer les urnes à Guy Mouride. Ça ne se reproduira jamais. jiital grand parti mi ngi woon foofee sa tëngee ci si centre bii di delloo si mu mel ni kon centre la bu nga xam ne nii ña fa nekk moo di ña nga xam ne seen xel dafa wàññeeku waaye ay jirim euh, fu ñu ngi ko sanc sa Colobane euh, commune bu Rufisque Est moom la ñu tabb nag def ko ambassadeur bu centre ba moom Malick Gakou ne dana def kéem kattanam ba centre ba daal di mën a avancé waaye jafe-jafe yi ñu jànkoonteel fa mu ko war a waxee dana fa yegg euh, jàmbat seen ak jàmbat mu wax ka fa ñu ànd si Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye bi mu juddu ci jamonoy mbas mi di Covid 19 ki ko boot amoon yéene ci aar ñi amee feebaru xel tey taxawalu ci mbedd yi rawatina jirim yi boobu ba léegi nag tegg loxoom donte ne jafe-jafe ya muy jàkkoonteel. fi nga dekk nii kër la parce soo lii si bunt bi da ngay kër sëñ Babacar Kam te kër lañ dëkk te ñii fi nekk ñëpp si mbedd bi lañ leen indi indi leen si kër tey fi ngeen gis fi man fi nekk nii soo ay kër ñoo wër ñii fi nekk nii ñu jàpp pour ñu mën leen ndox ñu bañ leen buddi santé mentale pour ñi nga xam ne am nañ feebu xel ñu mën leen fa yóbbu ñu mën leen ñu mën leen doon toppatoo xam ni moom la ñu mu nekk ambassadeur bu centre bi Malick Gakou ñëwoon nemmeeku si ña fa nekk président bu grand parti jël engagement ne dina gunge ñi ko sos euh, Sénégal bu nit xelam neexul rek dañ koy fal sànni ci benn kenn dootu ko toppatoo moom bu jëlee temps bàyyi liggéeyam bàyyi léppam jël kër ànd ceeg préfet bi dugal leen fii di leen di leen solal di leen jox ñuy lekk di naan je crois kooku war na société bi war ko wax jaajëf. lépp lu ma mën dinaa ko def jàppale leen man ak samay xarit ndaxte ni nga ko xamee ñun dañuy yëngu ci social. centre dellu si yor turu kër Serigne Ababacar Kane di ki nga xam ne jamono yi moom mooy préfet bu département bu Tëngéej tey jii nag ñu bëri ci askanu Tëngéej tàmbali di xam boobu leeg centre. député du peuple li war na nekk occasion ngir ñu waxtaanee jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci mbedd yi ak ñi ñu woowee ay malades mentaux bari nañu itam tambaambalu si mbedd yi te centre yi nga xam ne fan la ñu war a yóbbu euh, fees na lan moo war a nekk li nga xam ne moom mooy solution. non seulement fees na maam non seulement sax fees na mais centre yi dafa am lu leen di war mottali eh, ci wàllu ay jumtukaay ci wàllu personnel personnel boobu itam ñu motiver leen. mais boo taxawalee centre bu mel noonu te personnel ba boo leen gisee yéene leen sarax aussi ça pose mm, problème xam nga tey boo demee à l'étranger bari na ay sénégalais yoo xam ne ci ay centre yu ay mag di nekk ay handicapé di fa nekk fa la ñuy liggéey di fii di fa gañ seen di gañ seen wërsëg mm-hmm. mais dañu ciy liggéey ak volonté dañ ciy liggéey ak détermination parce que xam nañu ni bu weer deewee ñu am luñ ci gañee man ci yor seen famille man ci tabax kër man ci am oto et cetera am ci teraanga mais fii Sénégal tey xeetu centre yooyu noonu nga xam dañ fay denc ñi handicapé wala tout tànk yi wala mag ñi wala ñi manque ñi ci ak laago eh, fii la ñu gis ay silmaxa yu jàng ba am baccalauréat ñu leen di dóor ay lacrymogène ci ay manifestation mhm. manifestation silmaxa lan la mën a empêcher doxalin réew mi doo ko bàyyi mu manifester exprime li mu bëgg a exprimer nga déglu ko déjà nekk handicapé di jàng góor góor góorgóorlu ba am bac ñu war la dimbali orienté la seen bras yi ñuy jànge donc mënu mënu leen ko lijjantil nga yàq ay millions ay centaines de millions ci ay meeting jël ay millions di ko fay ay ay ay nervis ñuy attaqué ay nit nga gis ay nit yu jàng ba am bac nekk silmaxa am na centre bu nekk caaroy tey boo fa demee lépp loo soxla ci ay serpillère ay balai ak yeneen ak yenn ñu ngi koy liggéey centre boobu euh, amoon nañu benn convention ak waa UNACOIS bëggoon leen a jàppale sax yenn saa yi ndeysaan dem di jënd ñoom li ñuy defar pour di ko jaay mu nekk geste bu rafet mais nguur gi daf leen war a accompagner ci loolu. Mm. ci lu bari lu ñuy jënd. c'est-à-dire que xamu lu tax ñu am comple ci consommer local. Mm-hmm. surtout ba ci sax suñu handicapé dañ leen war taxaw dimbali moo tax Malick Gakou def ñu geste bu rafet la. na na na nangu li ñu ko def ambassadeur te mu taxawee ko taxawee ko nag mooy bu ñu ko gëj a gis na leen di nemmeeku. dafay dem na fay dem day xool seen i jafe-jafe. lu mu man mu def ko ci lu mu ci mënul mu dénoncé ko pour ñu changer mhm. seen ay situation handicapé war naa am na nu ñu koy xoolee Sénégal. Mhm. te ñu bàyyi di di leen di leen. discrimination kii handicapé la kii du handicapé ñëpp ay sénégalais ni ñu yemee ci kanamu yàlla la ñuy yemee ci république bi. Mhm. ñu jox leen considération comme ni ñu ko joxee keneen. fii ci fii ci réewum Sénégal sax euh, Ansoumana Dione rek la ñu gis mu yàgg xeexal ñi nga xam ne ñoo ñoo seen xel matul te bu ñu fàtte ne ñi seen xel matul du rek ñi nga xam ne ñoo nekk si mbedd mi mais am na ñu nekk seen kër euh, te seen xel souvent fii Sénégal dañuy gis dañ leen di sànni ci mbedd mi sax mhm. euh, ñu yokk sax li nga xam ne mooy sax tawat dañuy wax dañ leen di sànni ci mbedd mi mais ñi nga xam ne seen xel matul nekk ci biir kër yi moo ëpp sax ñu nekk ci mhm. mbedd yi mais xam nga lan mooy seen problème duñ leen di mën a gérer chaque jour nga gis fii <clears throat> ñu wax ñoo xamee ni dañu ñëw fekk ñu ñu ñu ñu takk leen ci biir kër gi. Mhm. ci benn néeg juste pour bañ mu génn parce que euh, xeetu ñenn ñi dañ koy gisee doyadal wala ñu am ñu ñu ñu xoolee la ni euh, euh, sa famille baaxuñu wala tam la sax wala yu ni mel mais gis nga Ansoumana Dione mi liggéey ci wàll woowu fulaanuñu ko. Mhm. moom bu waxee dañ naan dof bi waxati ngeen baal ma ci kàddu gi mhm. alors que. moom son son son combat depuis fort longtemps mooy moom ci boppam dafa am mbokk boo xamee ni mhm. demee na noonu mu jàpp ni lii xeex la boo xam ne dama ko war a xeex pour ñu mën a jox au moins yenn ci ay jumtuwaay association bi mu yore mën a jàppale ñi nga xamee ne ñoom ñooy ay malademento mais malademento yooyu am na ci ñoo xamee ni tey mais danger lañu sur la voie publique di rey nit wala romb dóor nit wala yu mel noonu mais kenn du du du ko wax c'est mhm. tout simplement parce que nguur gi peut-être ci ay priorité am ministère la santé ak ñeneen i kuréel yoo xam ne ñoo war a yor war a yore loolu dañ ko jël fulaaluñu ko te dañ ko war a fulaal parce que ce sont des êtres humains conditions yi ñuy dundee metti na nga ñëw ñu bàyyi la ci mbedd mi ci fa anam ñu lay bàyyee ci mbedd mi metti na tey bu doon président day dem Rufisque mu ay malades mentaux errants ñu koy waxee ñëpp dugal fenn ñëpp la ñuy raxas nëbb leen fenn ba mu romb def la muy def ñu waat leen mais ça c' est mais ça c' est am na ñoo xam ne ay ngànnaay lañu yor seen mbedd. mais loolu dafa rafetul nañ leen jël. seet lu mhm. ñu leen di dugalee ci yenn am na ay kuréel yu taxaw yoo xamee ni dañu ñëw fekk benn malade mental errant nu ñu koy waxee euh, ñu ñu ñu jël la. sangat la sang la. def wat la def ba pare. commencé di waxtaan ak yow parce que am na hmm. discussion boo xam ne peut-être ku ci nekk ak li la yàlla may mën nga ko discuter ak ñoom ba di leen delloo si ndànk-ndànk seet foo leen dugal foo xam ne dañ fa mën a ndékki añ fa reer ba du ñu soxla di dem di wër ci ay mbalit wala di euh, am yenn anam yoo xam ne dañ koy dañ leen koy gis ci mbedd mi dafa rafetul ci image u Sénégal rafetul te mbaam gàtt na si jur gi la bokk ñu des ba tey si tëngeej yi nga xam ne jëmmal na ndongom yi nga xam ne ñoo gën a xarañ mu di rek fête de l' excellence boobee première édition bi la mu di journée de l' excellence ak ay euh, partenariat juróom fukk ak juróom ci ay ndongo jot nañu leen fa dara jaal Mamadou Diop inspecteur d' académie bu tëngeej ay kàddoom ciy ñëw di ci jongante mooy xale yi nga xam ne ñoom ñoo gën a xarañ ci seeni école nga xam ne lu bon bon bon bon bon am nañ moyenne 14 ñooñu la ñu dajale ñu ñëw ñu daal di natt ak ay épreuve yoo xam ne nii épreuve yoo xam ne amul fenn xamuñu ko fenn musuñu gis fenn ñu daal di xëccoo bu ñu xëccoo noonu ci biir ci la ñuy tànn ñan ñoo raw ñooñu ñoom lañ doon sargal tey di leen feete ci kanamu autorité yi Miss Mat Miss Science bu daaw bi nga xam ne dañ koo def ba génn résultat yi Covid bi ñëw ba tax defuñu ñu nekk doon sargal yenn autorités yi boo ko boolee diggante juróom fukk ak juróom ba juróom benn fukk tey joxe nañ ko euh, élèves yi dañoo jogante ci ay matières Miss Math Miss Science ku ne xam ne ne mathématique la science physique ak SVT